rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa tanala bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tey mooy sunu jotaayu fukk ak juróom-ñeent mooy numéro 19 bi ci sunu xasida gi di jazbul qulub li allaamil xuyub mu mel ne sëriñ bi jeexal na xarbaax yim doon nettali di ay mucjisaati yonent bi sallallahu alayhi wa tey nag dugg ci salaatu ak salaam mooy di julli bi di ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka sunu bindu tey bépp ay julli ci yonante bi la sallallahu alayhi wa kon ñi nga war a tàmbalee ci yaa rabbi solli sarmada ala nabiyi ahmada wa alihi dawil huda wa sahbihi ci yaa rabbi lay tàmbalee waaye bayit yëpp ci wa sahbihi wa sallimi lay jeexe mune ne yaa rabbi woo naa la yow sama boroom salli yàlla nga dolli xéewal sarmadan fawu ala nabiyi ca yonantu ba ahmada te di ahmad benn la ci ay turam wa alihi ak ay ñoñam dawil xuda ñey waroomi njub sax bi ak ay saxaabaam wa sallimin nga dolli ko musal mu ne suñ boroom yàlla na nga def salaatu salaamu koo xam ne day sax dàkk ci yonante bi sallallahu alayhi wa ak ña xam ne ñooy waa këram mooy ña moom deret te gëmoon ko toppoon ko ñooñu nga xam ne ay woroomi njub lañ te képp ku leen topp danga nga jub ak saxaaba yi mu ne yaa rabbi yow sama boroom salli yàlla na nga dolli xéewal abadaan faw ala nabiyin ci ab yonent abada bopp jaamu na yàlla te dàq jaamu yàlla ñëpp wa alihi ak ay ñoñam dawin na daa ñey waroomi tab wa sahbi ak ay saxaabaam wa sallimi te nga dolli ko wóolu mu ne saa boroom yàlla nga def salaatu salaam goo xam ne du am fu mu yem ba fawoo faw lay doon def ko ci yonent bi nga xam ne moo nekkoon jaamu ko tu yàlla ba nga xam ne moo daq jaamu yàlla ñëpp képp ko jaamu yàlla moo la ko jàngal noo koy defee ak waa këram ña nga xam ne dañoo tabe woon lool mënoon a joxe mu ne yaa rabbi yow sa borom salli yàlla na nga dolli xéewal kulla xiin bépp jamono ala rasulika ci sa yonant bi al amin te moo di kañu wóolu te mu wóor wa alihi ak ay ñoñam dawil yaqin ñooy borom ñooy boromuk wóolu yàlla suñ borom subhanahu taala ña nga xam ne am nañ darajey ay ay yaqiin sax bi ak ay sahabaam wa sallima tama dooli koo musal mu ne yow suñ borom jamono ju nekk yàlla na nga def salaatu wa salaamu ci bii nga xam ne laataa ñu koy yónni lañ ko tudde woon al amin ba ci ay noonam ba ci yéefar yi ku leen laajoon kan moo gën a wóor ci dëkk bi ñu ne ah, wax dëgg yàlla liñ koy bañ bañ nag amul kenn ku ñu doyloo ci suñu alal niñ ko doyloo moom amul kenn ku ñu doyloo suñ kër wala suñuy njaboot wala bu ñuy dénkaane ku weesu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam doonte gëmunu ko nag kon ba muy doon dégg nga waxamaane booba lañ ko tuddoon al amin buñ bëggaan buñ bëggaan atte dara dañuy dem ci moom ne ko attenu euh, kon loolu day wane rek ne li ñuy wax alxaqu ma shahida bihi al a'daa wax ne loo xam ne say noon dem nañ ba di ko sax day wane ne day wane ne loolu dëgg ko wér la waaye ak waa këram ñi nga xam ne àggoon nañ ci am daraje al yaqin yaqin mooy dem ba àgg ci suñu foo xam ne fa sore sore lay doon mbir yu sew yu bare bare bare da koy sori lool mu ne yaa rabbi yow salli yàlla na nga dolli xéewal fi duhóor ci jamono yëpp xalal la si ca ka nga xam ne maxaa far na asubur alkande wa alihi ak ay ñoñom dawil xubóor ñay woromi mbég wa sax bi ak i saabaam wa sallimata wa dolli ko musal sa borom na nga def salaamu koo xam ne jamono ju nekk day dal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo fi jëlee alkane ak musiba moom la yàlla yónni mu jële fi bokkaale kéefër ak wedd yàlla texe di gi nit ñi naroon a texee di mu jële leen ci yóbbu leen ci ak texe ndax ci moom la yàlla jaare ba génne nit ñi ci ak lëndëm yóbbu leen ci ak leer yuxrijuhum mina zulumaat ila nuur waaye ak ay ñooñam ñi nga xam ne ay boroomi mbég lañu woon te daa bégale ak ay sahabaam yow saa borom salli yàlla na nga dolli xéewal kulla kulla bépp jamono wala kulla am bépp at ala nabi ca yonant ba xayril anam kay ngën gi mbindeef wa alihi ak ay ñooyam ala dawaam ci lu sax ala dawaam ci lu sax wa sahbi ak ay ak saxaabaam yow salli mu ne ko dolli musal saa borom maa ngi def salaatu salaam goo xam ne at mu nekk bëgg naa nga di ko sotti ci yonante bi sallallahu alayhi wa ak jamono ju nekk te du dagg du taxaw yonent boobu mooy ki nga xam ne mboolem mbindeef yëpp moom moo ci moo ci gën yaa rabbi yow saa boroom salli yàlla nga dolli xéewal fil wuquut ci jamono yëpp al wuquut mooy jamxu waxt da nga inna solaata kaanat ala al muminina kitaabam mawquuta kon al wuquut mooy waxtu ci ci ay waxtu bokk salli yàlla na nga dolli xéewal fil wuquut ci waxtu yëpp xalal fasiixi ca aji leer ja ay kàddu ka nga dafa am fasaxa éloquent si sukkuut ka di boroomu noppi ci lu amul njariñ wa li ak ay ñoñom dawil xunun ñooy boroomi toroxlul yàlla wa bi ak saxaabaam ya wa sallimi ta nga dooli ko wóolu yow saa borom yàlla nga def salaatu wasalaamu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci jamono jëpp jamono ju mën a doon rek ngay def ci moom salaatu wasalaamu kooku nag ku mënoon a wax la rafet aw làmmiñ waaye loolu taxutoon nag mu bari wax waaw taxutoon mu bari wax li ñaan yaa war a wax yaa nu doy la tax wax bu la bu la tax a wax loo xamut kon rafetoon na aw làmmiñ mën a wax lool waaye di wax nag bay wax lu amul njariñ mukk lépp lu amul njariñ da cay noppi ak ay ñooñam ña nga xam ne dañoo toroxloon jëm ca yàlla ak ay saxaabaam yaa rabbi salli fi nnahaar ala nnabi faxri nizar wa alihi wa sahbihi sëriñ bi di continuer ji julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ëndaale ay tur waaye mook saxaaba yi ak njabootu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa rabbi yow saa borom salli yàlla na nga dolli xéewal fi nahaari ci bëccëg yi ala bi ca yonantu ba faxri nisaar kay ndamal bannu nisaar aw xeet la wu yonant bi bokk ni ki nga ne olof wala tukulóor wala yu mel noonu wa alihi ak ay ñoñam zawil faxaar ñay waroomi ndam wa sax sahbihi ak saxaabaam ya wa sallime ta nga dolli koo wóolu ta dolli koo musal mu suñ boroom bëccëg yépp yàlla na ci def salaatu salaam ñeel yonant bi ak ay waa këram ak ay saxaabaam yonant bi nga xam ne askan wa mu bokk day mooy seen ndam moo tax ñu di leen tudd moo tax ñu di leen waxtaane waaye ak waa këram ñi nga xam ne ay waromi ndam lañu mu ne yaa rabbi yow saa borom salli yàlla nga dolli xéewal fi sabaax ci suba alan nabi ca yonantu ba zi salaax kay borom kay mbaax wala kay boromuk yéwén ak yéwénal wa alihi ak waa këram ña zawil falaax ñay boroomi mbégte wa sahbihi ak sahabaam ya wa sallimi ta nga dolli ko wóolu salli yàlla nga dolli xéewal wa sallim te yàlla nga dolli musal fil masaa ci ngoon yi wala yili ak guddi yaa man yow yàlla mi nga xam ne xadu sa sell na yow laay waxal yàlla na nga dooli salaatu salaamu ala raisi ruasa ca kilifa kilifa yëpp xayril baraaya te mooy ngën gi mbindéef sula mii mooy sama sëriñ mooy sama yoon wa jëm ca yàlla mooy sama jaarukaay ñaari bayit yooyu da ca wax suñ boroom suba yi ak ngoon yi guddi yi ak bëccëg yi yépp yàlla nga def salaatu salaam mu jëm ci yonante bi salaa salaam mi nga xam ne borom ak mbaax la waa këram ñi nga xam ne borom yi mbégte lañu waaye yonante bi nga xam ne mboolam kuy jiite moom moo la jiite mooy sëriñu sëriñ sépp loolu maa ngi la koy ñaan yow yàlla mi nga xam ne yaay aji la ji nee na yonante bi salaa salaam nag mooy sama escalier maanaam yéeg gi may yéeg di jëm ca yàlla ci yonante bi salaa salaam laay teg samay tànk di yéeg defe naa leeraloon nañu dalla ni allahu ala muhammadi ak ya ca sëriñ Tuuba yàgg naa wax ne yonent bi sallallahu mooy ab sëriñam du benn du ñaar muhammadun wasilati wa junnati moom bari na lool ci xaside yi nooru daayira nekk foo dem fekk ko fa yaa rabbi yow saa salli yàlla na nga dolli xéewal bi salaam gu ànd ak doole wóolu ala ca yonantu ba fit dawaam ci ak sax lu fu mu yem wala ali ak ñoñña wa sahbil kiram ak sahaaba ya di way tedd waqbal te yàlla na nga nangu bihi ca daraja yonante bi sallallahu alayhi wa sallam muntasami lu ñu way sama muy samay xasiida wala sama liggéey mu ne suñ borom maa ngi di ñaa ngi salaatu nekk ci yonante bi tolu am fu mu yem mukk du am limite na sax di dem rek ak waa këram ak saxaaba yi xam ne ñu tedd lañu maa ngi ñaan sama liggéey ak sama way wii yàlla na ko nangu ci barke bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallama salli yàlla na nga dolli xéewal xalaa laysin ci gaynde safaa goog saafar na xol ya bi yow mi badrin ca bisu xare ba badar ba is wafa ba mu matalee bi ahdihi ca kóllëreem ba ca dëëlam ba maa sihaabil xunafa an ak saxaaba ya di way rafet diine al muasami mooy moo di kañu màggal mooy yonent ba ñu màggal mu ne suñ boroom yonent bi salaa salaam mi nga xam ne gaynde la woon ca noon ya usudun alal aada demee ca muqaddamatul am daax sëriñ ba muy tagg saxaaba yi dane ay gaynde lañu waaye ca noon ya masaabihu fi jaa waaye bu ñu demee seen mbokk julli ñi rek ay làmp lañuy ñuy doon yu leen di leeral di leen gindi yonent bi salaa nee na gaynde la woon goo xam daa ñëwoon ngir saafara xol yi far ci ak kéefar ak bokkaale waaye indi ci lislaam ju sel ak tawxid mu ne keroog xare badar day la mu wëllëreente woon ak yàlla te mooy jaay seen eh, deret seen bakkan seen alal lépp jox ko yàlla ngir yëkkati baatu yàlla keroog def nañ ko ñook saxaaba yi nga xam ne ñu rafet diina la euh, yonent boobu mooy ki nga xam ne ko ñu màggal la day junju rasootu badri nag lu ca jëm ndax bay di yële ci di waaj ñëw incha allahu rabbi ci wàllu xare badar lay ñëw mu ne sallim yàlla na nga doolee musal ala badrin ci aw weer jalaa wow dàq na du jël xuloo bi lëndëm lëndëmi xol yi wa ala tamu kawe te mu féete kaw dawil maqaamaati borom maqaama ya al ulaa way kawe wa xisbihi ak kuréelam ba nga musal ko moo kuréelam ba wa azimi nga màggal ko moom yonent bi salaa salaam nee na maa ngi ñaan salaatu salaamu nekk ci kook nga xam ne aw weer la jamono ji nga xam ne guddi yi lay lëndëm jamono ji nekk ci fukki fan dégg nga wala fukki wala juróom-ñeenti fan weer wi doog a feeñ nga xam ne du leeragun lëndëm googu waaye nee na bu ñu demee ba am fukki weer fukki fan ak ak ñeent da ngay gis weer wi day leer nañu ne fang nga xam ne day mel dañoo taal ab làmp nee na weer wi nag noonu muy dàqe lëndëm gi daq ko ba mu daw nee na noonu la fi yonent bi salaa ñëwee bi mu ñëwee daa fekkul ak lëndëm nekk fi lëndëmuk bokkaale yàlla lëndëmuk noono lëndëmuk mañeel dégg nga lëndëmuk réer bi mu ñëwee nag dafay dàq lépp ba mel ne néeg bu lëndëmoon ñu taal ab làmp ni muy leere nga jàkkaarloo lépp noonu la yonante bi sallallahu alayhi def euh, ci xol yépp ba xol yi mujj leer nee na yonante boobu mbooleem kuy am maqaama mu kawe moo mooy sëriñub sëriñ si wax naa ko léegi bal am maqaama sax ci darajaam lañ la ko joxe yàlla na ko euh, def salaatu ci moom moom ak saxaabaam yi te yàlla na ko màggal qad qaama xayrul bashari wasta xiyaaru zumari ilaa dawi takabburi kal badri wasta an jumi mu mel ne bayit yi nga xam ne mooy waaje ñëw sëriñ bi daf ñu ci nettali xare bu mag boobu yi ñu tuddee xaswatu badrin nga xam ne mooy xare bi saxaaba yi njëkk a xare ànd ak bi sallallahu alayhi wa ginnaaw yu ndaw ndawaan ya nga xam ne moo amoon ñu leen tuddee ay saraya xaswatu euh, badrin lu yaatoo yaatu la loo xam ne dana naqare leeral na mu ware waaye liñ ci mën a tënk rek ba ki koy déglu man cee xam as mooy saxaaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba nu nekkee màkka yéefari dañoo lànk ne du ngeen fi wootee diina islaam du fi wootee diine joo xam ne day xas suñu bàyyi daf ñuy wax ne bu ngeen dee dem sawara diine joo xam ne diine ju yees la kenn du ko fi wootee te ku fi dugguru ku dugg ci diine ji danañ la mbugal waaye noonu ñu ko waxee ñoom yéefari noonu lañ ko defee di leen sonal di leen xëpp ay ndox yu tàng di rey ñenn ñi di taal kër yi ñenn ñi di leen xaj ak lekk ba yu mettee méttee méttee mujj xew ca gannaaw ba nag sunu boroom jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mën ngaa dem madinatul munawwara ba mu demee madinatul munawwara rek am ñu ko dimbali ñu leen tuddee al ansar bu ñu nee al muhaajiruun mooy ñi nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa màkka doon ko jàppale ak la ñuy néew néew doole gannaaw ba ñu gàddaay dem madina bañ demee madina munawwara ña ñeleen fa teeru. ñoom la ñu tuddee al ansaar ñoom ñoo dimbale yonante bi dimbale saxaaba yi génn seeni kër bokk ak ñoom bokk ak ñoom lépp ah, bi loolu amee nag te saxaaba yi alal jañ amoon nekkoon ay commerçant ñenn ñi nekkoon ay entrepreneur ñenn ñi nekkoon ay architecte ci waxin loolu lépp dañ koo bàyyi màkk ñàkk seen alal yépp ñàkk seen alal yépp bàyyi fi seeni kër bàyyi fi seeni bitig lépp yéefari jël ko bañ demee ba nekk Madina nag comme waa Màkka dañ daa def benn njëg mooy dañuy jël ay giléem ku ne xam ne ne màkka amul suuf suy saxal ab désert la am ak i montagne dañ daa dem ba saam jënd fa seeni conteneur ànd ak seeni soldaar jox ko Abu Sufyaan moom moo daa dem ku nekk joxe alal la nga bëgg jënd nga joxe ko buñ demee ñu jënd loola buñ ñëwee indi séddale ko waa dëkk bi bañ demaatee ba soxlawaat defaat noonu Abu Sufyaan moom mi nag lañ xamal yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko Abu Sufyaan kat jóge na saam yor na marchandise mu baree baree bari moo xam ne yéefare yi ñoo ko moom ma ngay jëm Makka te muy jaar sori wala lool fi muy jaar sori wala lool suñu borom nag wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko uzina lillazina yuqatiluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir ne ko yéen ñi nga xam ne da ngeen a nekkoon Makka ñu nangu seen alale jaay leen doole génn leen seen dëkk ba nga xam ne seenum réew la yàlla jox na leen digal mën ngeen a kar ñooñi dégg nga lu ngeen fekk ci ñoom mën ngeen a jël daggal na leen yonent bi nag ci la waaje waaye bi muy dem kat waajutoon ngir xeex dafa demoon rek ngir euh, nangu ji alal yooyu moo tax ñetti téeméeri nit la àndaloon ak lu teg ñu ak fukk ak ñett wuute yi da cee bari ñetti téeméer nit ñet bi ñuy dem daanaka yóbbaale wuñu arme bu bari ay fas it daanaka yóbbaale wuñ ci dara lu dul ñaari fas lañ yóbbaale ndax dañoo defoon rek ay commerçant yu jëndi woon marchandise ànd ak tuuti ay garde corps buñ demee dañ leen di song rek jël ko ni leen ko yàlla waxee waaye Abu Sufyaan ndekete am na information bi ba yónnee Màkka ni leen seen alal jigéen ma yónni woon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen noon boobu mi ngi may kar mi ngi nangu lu ngeen man bay boo ngeen def ko ndax bu ko nangoo rek danañ tuskare waa Màkka nag daal di génn seeni i jaas yi génn seen xeet fas yéene dem xeexe yàlla dogal na Abu Sufyaan moom def na ay pexeem ba wiiri jaar ko moom min na yoon wi jaar ci weneen yoon dégg nga fexe ba rëcc fexe ba dem Màkka kon yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee moom yéefari la dajeel yéefari nag bi ñëwee ci Abu Jahlin jiite leen dañ ne ah comme ñun dañoo jógoon ngir sauver suñu alal. te yàlla dogal na alal ji sauvé nañ ko kon day bay boo mën nañoo wàññi ko waaye Abu Sufyaan Abu Abu Abu uh, dégg nga uh, Abu Jahal Abu Jahlin moom mu ne déedéet da ngeen a ragal rek da ngeen a ragal yonante bi sallallahu alayhi wa daal daf ñuy jéem a dañuy dem ba fa moom ñu rey ko ray saxaabaam yi mu àndal su ko defee nag bu ëllëgee ñu xam ñun ñun maanaam uh, ñu xam ñu bu baax a baax a baax buñ demee rey leen bañ jeex. ñu tëgg fa benn concert naan fa suñuy sànkara ànd ak suñuy jigéen ñu wayal ñu ñu doog a dellu màkka ñu xam ne yóbbu nañ victoire waaye kenn du dellu ginnaaw loolu nag loolu moo indi xeex bi ni ab xeex waajaluñ ko woon moo indi rasootu rasootu badrin mu nekkoon ci weeru koor di jamono ju metti yonent bi salaasa waxoon ne képp ko mën a woor wooral ànd ko xeex ku mënta woor mën ngaa mën ngaa dog ngir am nga ngànt kon daanaka ci tënk lii moo waral xeex bi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam daa di daa di dajeeg yéefar yi a ah, daa di dajalewaat saxaaba yi nag ne leen ah wax dëgg yàlla de bi may génn xam ngeen ne xeex taxu taxuñu woon a jóg a ah, léegi nag xeex baa ngi nii gis nañu ñépp ne xeex bi mënt mëntut a ñàkk léegi nag ah lu ngeen ci xalaat waaye saxaaba yi di ñu dëgër ñoo xam ne tabaarkàlla ne ko nun daal loo nu wax ñu def ko rek dañ koy def loolu boo demee ca euh, miimi ya ba suñ tuwaa ma ngi koy nettali wa baxda ja shaawaru jaa'u bi raxyihimu wa saaduhum qaala xawlan xat nafa wahama ni ko suñ tubaa leerale ñu ne ko ñun boo ñu waxoon xuus ci géej gi jàll ñu xuus ñu xuus jàll loonu wax rek loonu wax rek danañ ko def mbir mépp daal ci yow la nekk ah loolee nag moo andi moo indi xeex ba loolee moo indi xeex ba suñu borom ne ah, yéen kat ba ngeen dem xaalis ak alal moo ngeen départoon defe ne moom ngeen jëli bi ngeen ñëwee fekk fi ay jéese ki xeej wa tawadduuna anna gayra shaati shawkati takunu lakum <laughs> wa yuridu ay an yuxiqa alxaqa bi kalimatih wa yaqtaa daabira alkafirin suñu borom ne man nag li ma li ma bëgg rek mooy yéefar yi ñu dal seen kaw wan leen biddiwu bëccëg moo ma gën a yitteel ci ay alali kese ndax alal moom amul solo boo a ci suuratul anfaal saa borom ma ngay nettali foofa yonent bi nag bi muy génn saa borom da koo dig ne ñaara man am benn nga dajeek Abu Sufyaan nangu alal ja ngeen jële ja comme mu bari ngeen mën ngeen mën koo dugal ci yoonu yàlla wala boog ngeen daje xeexkat yi dégg nga man leen duma man leen a gañe waaye benn ñaari faaw benn ma am ñaari victoire moom faw benn bi benn am ci faaw li leen tax a jóg ngeen jóg am ko wala bu ngeen ko amut bi xeexkat yi ñëwee yéenay gañe wa is yaidukum allahu ihda taifatayni annaha lakum wa tawadduuna anna gayra shaati shawkati takunu lakum wa yuridu llahu an yuxiqa alxaqa bi kalimatih wa yaqtaa daabira alkafirin li yuxiqa alxaqa wa yubtila albaatil walaw kariha almujrimin walaw kariha almujrimun saa boroom noonu la def kon nag loolu moo indi xeex bi yéefari nag biñ ñëwee bari woon nañ lool ndax nee ñu ëpp nañ ñetti junni xam nga ñetti téeméer ci ñetti junni moom day xaw a metti lool xaw a doyar pas-pas la suñ borom di jàngal rek ne ab néewaay ak ab tuutiwaay amul solo li am solo rek mooy pas-pas ak dogu loolu rek moo am solo kon bind yooyu moom lañu ñu euh, Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu di nettali moo tax mu ne xadd xaama taxaw na xayrul basari ki gën ci mbindeef yi wasta xiyaari sumari ci digg mbooloo ma nga xam ne ay tànneef lanu muy saxaaba yi ilaa dawi takaburi jëm ci warum rëy rëylu ya mu yéefari kal badri mu mel na weer moom yonante bi wasta an jubi ci digg ay biddiw nee na keroog boo gisee yonante bi mu ànd ak saxaaba ya dafa mel na weer woowu ay biddiw wër ko nee na noonu la mel weer woo xam ne dafa leer naññ ay biddiw wër ko ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la mel ñu fas yéene dem jàkkaarlu jeg yéefar ya yow man bis la boo xam ne istadda taraw na bihi ca bis ba an ni daal fettante ba yow man bis la boo xam ne istadda bi tar na lool alxitaal xeexante yow ma taarufu rijaal mooy bisub xamante góor ña yow ma rida mooy bisub ngërëm ñeel saxaaba yi ak yonant bi wal waje mi ak njàqare ñeel yéefar yi nee na bis la boo xam ne xeex ba ak fettante ak rayante yi métti woon na lool bis booba góor gu nekk xam na moroomam maanaam góor ña bu ñu jaxasoo rek la ñuy xamante dañuy xam jàmbaar yi xam ñu dul ay jàmbaar waaye bis la boo xam ne saxaaba yi jëlee nañ ca ngërëm ndax yonante bi sallallahu alayhi wasallam woon lu leen neex mën ngeen a def ba adduna tukki yàlla garanti leen ak texe gu mat sëkk du ngeen defati lu leen yàqal waaye yéefar yooye ci lañ jógee torox ba faw rawatina Abu Jahal ma nga xam ne ca bis ba lañ ko rey moo tax moom ay mbiram yàggut wa dalika al yawmu boobee bis falaahun am mbégte la lis ihtidaa in ñeel boroomu gindiku war a baax tadi ak texe lis irtiqaa in ñeel boroomu yéeg jëm ci yàlla wa salaax tadi ak mbaax li kulli saxsin ñeel yépp jëm muslimin ju di ab jullit nee na bis boobu mbégte la di tonawu di ak defaru ñeel ki nga xam ne dafa bëgg jub jëm ca yàlla ñeel ki nga xam ne dafa bëgg a yëkkatiku jëm ca yàlla waaye ñeel ki nga xam ne dafa gëm suñu borom subhanahu wa taala bis boobu bis bu yéeme yéeme la bu mat a bàyyi xel ndax bari na ay jàngat lool yow mun bis la boo xam ne xadd xafara jéggal na bihi ca bis ba zunuba man bakkaare ka nga xam ne xadd xadara teewe na ko xadd xadara teewe na xitaalahoo xeexam ba kan moo ko jéggal rabbul waraa borom bindeef yi kabiratan bakkaar bu mag kàllama mi ni ki bakkaar bu ndaw nee na bis la boo xam ne suñ borom ña nga xam ne ñoo teew ca xare ba suñ borom jéggal na seen bàkkaar yu mag ak seen bàkkaar yu ndaw ña nga xam ne ñoo teewoon ca xare ba da ca xeex suñ borom jéggal leen seen bàkkaar yu mag jéggal leen seen bàkkaar yu ndaw laaxaa daje naag dawul xayri woroom yiw ya asihaab ña di ay àndandoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ca bis boobee daje nañu ñan dawit dayri boroom lor ya asihaab ña di way jëfe ay mbir mooy yéefar ya sahaaba ya nga ne ay borom yiw lañu daje nañu ak borom lor yu metti ya ñu naqare naqaree jëflante mi naqaree xeexal ndax ab bariwaay wuxum te ñoom kat saxaaba yi maan ñoom ñëpp usdun ay gaynde lañu xidaab yu di way mer sa wërtifaa eleme mi di borom yëkkatiku ay yitte ne saxaaba yi keroog bariwuñu wuñu bari wuñu waaye daje na ak yéefar yu bare bare bare bari waaye am pas-pas ak yitte ju kawe moo tax bañ daje ñoom dañoo mel ay gaynde yu mer rek songu leen ray leen rey bu gaaw a gaaw a a gaaw tanaasaxoo xeexante nañook eh, wala xëccoonte nañook xëccoonte nañ ñoom saxaaba yi ña ngay xëccoonte al mawta deega maan mboole seen maanaam keroog saxaaba yi ku nekk dana maay dee bu dee taxawee maay dee dañuy xëccoo deega wala kullu képp minhum ci ñoom saju a jàmbaar la joo xam ne yabu xëy day sàkku al liqaa dajeeg noonu ba aw yusraa ba keroog ñu di ko daaneel li xob bi maahil xuma mi ngir bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy aji far njàqare nee na keroog saxaaba yi fipp nañ nekk ci àll boo xam ne déegi dañ ko doon xëccoo dañoo mel ne ku ci nekk da ne man daal maa jóg songu noon bi benn ma rey noon bi wala noon bi rey ma rek moo tax baatub aw yusraa ñu bàyyi ko xel aw bi maanaa ilaa loolu bari na ci alxuraan bari na ci mbindum mbindum sëriñ bi eh, bu doon bu fekkoon wàllu naxu rek moo nu yitteel kon danañ taxaw fu bari waaye eh, tabarkàlla day day gudd dañoo mer mer moo xam ne dafa mel ne dee dañ ko doon xëccoo boo leen gisee dañoo mer dee daa mel ne dañ ko doon xëccoo ku ci nekk rek jàkkaarloog noon bi di xeex ba rey noon bi wala boog di xeex ba noon bi rey la nga texe dugg àjjana ndax loolu rek lañ ñaar yooyu lañ am mooy ñu gañe noon bi ba noppi bu ëllëgee ñu mën a dundaat ma ne xeexaat wala boog noon bi daa leen daa ne leen ñu daal dugg àjjana àjjana direct yàlla na yàlla gërëm bu tax yi ku leen di fontoo wala nga leen di xeeb wax dëgg yàlla xamoo li ngay def taxawoo nañ lislaam ci jamono ju méttee méttee métti waaye jamono jii nag jamono yi réer la nit ñi daanaka xamuñ leen joxuñu leen seen daraja te moo ne kuy julli wala ngay woor rek ñoom ñoo la may lool ndax ñoo taxawal lislaam ndax lim bii nga xam ne ñoo doon xeex ak yéefari ci xaswatu badrin yonante bi salaa salaam keroog dafa ñaan yàlla na ko suñ borom wax dëgg yàlla mbooloo mi ma àndal ñoom dong ñoo des ci kaw suuf ñu la gëm bis buñ leen faatee duñ la jaamoote ci kaw suuf daanaka ñii ñoo fi des moo tax suñ borom dimbale leen yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te bëgguloonu saxaaba yi xam ñu xam seen gëdd te bañ leen a fooye wa man xad naa humu shafiu shufaa xatta algubaaru shataa bayna jabaani wakami ñi ngi nekkoon fi ñu sëriñ bi doon nettalee xaswatu badrin ak na mu demee woon ak ya ca aju defe naa tënkoon nañ ci lañ ca war a tënk ci tënk ci gàttal rek mu ne waxaataloo xeex nañu ñoom saxaaba yi man ña nga xam ne xadanaahum tàggee woon na leen safiu shufaa aji rammu way rammu ya xatal xubaaru ba nga xamee ne pënd ba sataa jolli na yëkkatiku na bay na jabaanin diggante ay tàppet ay ragal wakami ak ay jàmbaar wakami nee na saxaaba yi ña ngay xeex ak yéefar ya bañ jàppandee ba pënd ba jóg di xeex ñoom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem ku war a dee ci yéefar yi rek wala ñu bari ñu war a dee ci ñoom yonent mi ngi tàmbali di leen tàggee naan naan yéefar diw danañ ko rey fee lañ koy reyee yéefar diw fële lañ koy tëre yéefar diw fële lañ koy Euh, dégg nga sampeb xeej mu dee bokkoon na ca ñooñi abu jahal mi nga xam ne ku doyoon waar la ku mënoon a xeex lislaam la waaye koo xam ne le bu fi yàggoon bu teelutoon a dee euh, mën naa am dana mën a yàq lu bari ci lislaam mën naa am looloo tax xëy na suñ borom teel ko fee jëlee abu jahli moom ba lislaam doog a démarré rek xare bi njëkk am muy xasootu badrin bii ñuy nettali moom ci lañ ko reyee te ndeysaan moom kat ay xale ko rey ay xale ka sax du mag ñaari xale ñoo doon werante ku nekk ne maako ko rey waaye ba yonent bi xoolee ñoom ñaar ñëpp seen i jaasi seeni seen xeej taq deret yonent bi ne leen yéen ñaar ñëpp yéen a ko rey dégg ngeen ñu ne waaw <laughs> kon nee na yonent bi dafa leen doon tàggee ñoom yéefar yi bi pënd bi jógee ba ñuy jàppante ku ci nekk rek ñu tàgge la wax na diw fii lay daanoo diw fee lay daanoo yonent bi salaa salaam mi nga xam ne mboolem kuy ràmm ku ñuy yaakaar nga xettali ab jaam ëllëg yowmal xiyaam moom ngay yaakaar moom mboolem kuy ràmm rek ci moom ngay yaakaar te am yaakaar am ràmm lan mooy am ràmm ràmm alxuraan saxal na ko xadis saxal na ko wala yashfauna illa li man irtada maanaam ràmm mooy nit ki dem yowmal xiyaam su fekk ab jullit la ràmm dee su ko def ab yéefar ab jullit la bu dem yowmal xiyaam ñu xool ay jëfam mu mel ne am na lu ci manqué ba nga xam ne boo muy tudd dañ ko waroon a mbugal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñ borom seet ma ci suñ borom xam naa ne kii moom ay jëfam mënu ko dugal àjjana maa ngi lay ñaan nga seet ma ci suñ borom seet ko ci am na nag ñu bari ñoo xam ne mën nañoo ràmm euh, képp nit ku baax rek mën naa ràmm waaye ràmm nag du da ngay toog àdduna di def loola neex defe ne boo faatoo rek sañ diw moo la garantil war laa Eh, yóbbu àjjana wala yu mel noonu déedéet dee su ko defee noonu wala yashfauna illa liman irtada duñu ràmm mukk lu dul koo xam ne dafa gërëm loo yàlla wala ku yàlla soob incha allah su man naxaa mu daa di dëgmal topp mu dëgmal si mina sama bàyyi ko ci asamaan cosaan li mooy mina sama yi xaylun ay fas wa dun akub kuréel atuma yu di way màgg wala bokk yooyu màgg nañu ñoom ñaar ilaa raisil kurama jëm ci njiitu way tedd ña mbir mu muy mbég bi xayri wakkami ci lu dul njàqare amaddahu tëbb na ko mooy jox na ko ba mu doyal rabbul anaam borom mbindeefi di yàlla bi jundi am laakin ci soldaari ay malaaka ida min yu di way rëy te màgg li adadin ngir barib limba rek laa lihaam waaye déet ngir xeex ardaw alag nanu zawi taasumi warom màgg-màgg lu ñaari bayit yooyu suñ boroom subhaanahu wa taala ci la xettalee jullit ñi ñaari bayit yi sëñ bi di ñu nettali di wax ne keroog de dañoo xool ci côté asamaan ñu gis ne am na ay soldaar yu bàyyikoo ci asamaan di wàcc ñëw ngir di béggale yonent bi sallallahu alayhi wa te ñoom ay malaaka lañ yu rëy war ci seeni fas waaye malaaka ya nag ba ñu ñëwee du dañoo ñëw ngir xeex waaye dañoo ñëw rek ngir bari limu saxaaba yi ngir tiital yéefar yi ba ñu yonjax ba ñu neex a neex a duma su ko defee jullit ñi man man leen a duma jullit ñi man leen duma duma yu metti boo jàngee alquran istaqulu lil malaikati alay yakfiyakum ba mu jeex danga dégg eh, suñ borom fi mu doon dimbalee jullit ñi xaswatu badrin yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu gisee yéefar yi bari lool gis julli ñi néew mu ne suñ borom maa ngi lay ñaan ndimbal sa ndimbal maa ngi koy sàkku de maa ngi sàkku sa ndimbal amul lu dul rek yonent bi xool ko tey asamaan gis Seydina Jibril mu war ci fasam boobu tudd xaysuum dana ci ñëw ci kanam léegi ñëw daal di kaalaw kaalaw kaala go xaw a wert nee na ñëw ànd ak ay soldaar yu bari yonent bi ne Seydina Abubakar ah mbir bi nar naa neex de Jibril de mi ngi nii di ñëw jibril li ñëw ne yonent bi salaa salaam bi ngay ñaan bi nga toogee di ñaan rek la ma saa borom ne ma acca demal nga dimbale leen ñu daal di ñëw euh, yor seeni jaasi war ci aw fas tiital yéefar yi da nga gis yéefar bu xool ab malaaka rek daanu daal di dee nga gis koo xam ne moom ba ko xoolee déewut waaye daa tàmbale di lox ñu fekk ko fa jekkale ko noonu lañ leen noonu lañ leen def kon malaaka moom xam nañ ne xajul ci doomu aadama benn malaaka doog mën naa tukkal adduna gis nga nañ euh, alxuraan bu ñuy faa nettali fa axasaduhumu toog a riixoog yu bare bari ñi nga xam ne malaaka da leen alak benn malaaka donc la suñ borom di yebal ni ki xaw mu luut bañ demee ba jéggi dayoo rek eh, dañoo yebal Seydina Jibril mu jël laafam teg ko ci suuf si yëkkat dëppër ñi ko wëlbati daal di taw taw yi mbugal seen kaw kon ñoom nee na ñëwuñu ngir xeex de dañoo ñëw rek ngir tiital yéefar yi ba ñu néew doole su ko defee julli ñi mën a jaar seen kaw rek daal di jàll moo tax mu ne bañ xoolee ci wàllu asamaan gis nañ ay fas ak ay kuréel ay soldaar yu bàyyikoo ca asamaan ñëw te ay malaaka lañu yoo xam ne mooy ahlu badrin ahlu badrin boo ko déggee rek ñaari xaaj lañu ñaari xaaj lañ am na ñoo xam ne ay doomu aadama lanu mooy saxaaba yi am na ñoo xam ne ay malaaka lanu Sëriñ Tuubaa ba mu demee ca géej ga ba ko tubaab yi naree fontoo di ko sonal di ko sonal di ko sonal daa mujj suñ borom wàccee ahlu badrin ahlu badrin ñu war seeni fas taxaw ci kaw jaww ji nag ak siwuñ ñëw ba tiim soldaar si waaye agsi wuñ ci kaw suuf soldaari di jàkkaar di jàkkaarloog ñoom baaxiram nii di leen gis <laughs> waaye daal di tiit ba nga xam ne di lux tu di lux di lux di lux di lux ba ñu mayee sëñ tubaa jàmm so eh, badrin daal dem waaye ba ñu laajee sëñ tubaa ne ko waaw ñooñee ñëwoon ngir doon la dimbale ci tubaab yi nañ dimbaloo yonent bi salaa salaam da ngaa wax ne asma da ngaa ne ahlu badrin la sëñ tubaa ne waaw ahlu badrin la ñu ne ko ahlu badrin kat ñaari xaaj lañu daa am ñoo xam ne ay malaaka lañu am ñoo xam ay nit lañu yow ña la doon dimbalee foofa doon tiital tubaab bi malaaka yi la wala nit ña la mu ne malaa malaayika yi la ñu ne ko Seydina Jibril ndax ci la bokkoon Sëñ Tuubaa moom moo leen jiite boo yëree téere bu ñu tere irwa un na nadim min asbi xubbil xadim daa ca fekk loolu lépp kon asma ahlu badrin ñaari xaaj yooyu lañ kon suñ borom yónnee juróomi junni malaaka bi xamsati alaaf la wax ci alquran ñu ñëw nag eh, doon tiitali yéefari rek moo tax mu ne li adadin ngir lim ba rek ngir bari lim bi ñu ne jullit ñee ko bari waaye du ngir xeex ak ñoom ndax malaaka xajul ci doomu aadama teewul am na eh, mu arrixuune yi ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu taarix werante nañu xeex nañoo xeexuñoo eh, nangam nangam wallahu aalam wa fihim nekk na ca seen biir iswaradu ba ñu rotee ba ñu agsee xaliluhu xaritu bu yonent bi al mumajjadu kadi ku nu màggal ñu ko kokkan la mu ne jibrilu moo de jibril neama amul morom asanadu kilifa ga fawxa jawaadin ci kaw aw fas aw naaru góor shaysa mi wuy aji gudd te rëy nee malaaka yi bañ ñëwee day bokkoon na ca ña ñëw mooy sayyidina jibril mi nga xam ne xarit la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ku suñ fonk la sàmma amin ku yàlla wóolu la foofee fa barabam yu tedd yooye nee na ca la bokkoon mu ñëw war ci kaw fasam mu tudd xaysum boo jàngee yeneen xasida sëriñ Tuubaa yi da ci fekk lu gën a yaatu mu di ko mu di ko leeral war ci fas woo xam ne chay chaydom la mooy fas woo xam ne dafa gudd lool te rëy moo leen jiite woon kon wasaarau ña ngay gaawantu ñoom saxaaba yooyu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ilal kifaax jëm ca guerre ba jëm ca xeex maa suyufin ànd ak seeni jaasi wa rima ak i xeej xubba salaahin ngir bëgg ak yéwén ngir bëgg suñ borom defar leen o falaa ak mbégte ñeel lislaam xalfal imaami ña nga nekk ca ginnaaw imaam ba al ansam ba gën a màgg mu yonante bi sallallahu alayhi wasallam na ña ngay xeex seeni jaasi ak seeni ngànnaay seeni xeej lépp rek ngir bëgg tuyaabay suñ borom ngir bëgg suñ borom defar leen waaye defar dina islaam diine islaam am ndam am mbég ñoom ñëpp ñu ànd ak yonante bi sallallahu alayhi wa fihim nekk na ca seen biir al mu muhaqiqu aji dëggu ja kookan la mu ne sayyiduna mooy sunu sang ba al muwaffaqu kadi ku ñu defal tawfiq asdaqu man gën gaa dëggu dëgguy ña nga xam ne sadaxoo dëggal nanu bil haasimi yi ca kojug haasim nga ala alami kadi alam alam mooy ka ñëpp xam muy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ca ña teewoon ba doon xeex mooy sayyiduna abubakar ni siddiq lay junju te bayit wa ca kanam moo koy indi incha allahu rabbi yi nee Seydina Aboubacar ku yàlla mayoon mu dëggu la ku yàlla defal tawfiix la ndax daraja yi mu am ci yonante bi sallallahu alayhi wa am ko ci lislaam niiwaana kenn am ko ci nee na mboolem ñu doon dëggal di topp yonante bi eh, sallallahu alayhi wa sallam moom moo ci gën a dëggu moo tax sax ñu tudd ko as-siddiq dégg nga moo gënoon a dëggal ci kan ku doon dëggalal ma ma ngay dëggalal ci bi nga xam ne alhaashimi la maam daa bokk ci banu haashim waaye yonante bi sallallahu alayhi mi nga xam ne alam la mooy ku ñëpp xam na Euh, du ku ñuy laaj siddiquhul mukabbaru dul haybatil muwaqqaru anisuhul musabbaru fil ghaari ba'dal a'lami mu ne bokkoon na ca ña teew ba siddiquhu dëggalaa konam ba kadi ku ñu rëyal kadi ku ñu daraja dul haybati kay boroom jikko ja wala kay boroom melowa al muwaqqaru te mooy kañu wekk aniisuhu muy wettulu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam al musabbaru kadi ku ñu muñloo fil xaari ca xuntima baadal aalami ginnaaw yàlla mi nga xam ne mooy ki gën a xam lépp ma ne Seydina Abubakar Siddiq ku yàlla mayoon daraja koo xam ne ku amoon xëyba la ku ñëpp wegoon la ku ñëpp rusoon koo xam ne keroog ba yonante bi sallallahu alayhi wa nekk nekkee ci xuntima moo ko fa moo ko fa doon wettali ginnaaw yàlla ba sa ne id huma fil gaari is yaqulu li saahibihi la tahzan maanaam mooy saani yes nay ni mooy ginnaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo moom rek moo leen ñetteel ma saa doon ko tagg noonu nee na moom bokkoon na ca ña nga xam ne ñoo teewoon ca xare ba bokkoon na ci ki wéttali woon yonent bi sallallahu alayhi wa ci ca xuntima te booba rafetaloon na ak muñ maanaam rafetaloon na lool saalitoon saalitutoon wa fihimu bokk na ca ñoom ña teewoon ca xare ba al mubasharu kadi ñu bégal bi kulli xayrin ci wépp yow umaru te mooy sayiduna umar sayiduna mooy sunu sàng ba al mutamiru kay aji jëfe ndigal kay aji jëfe ndigal izzatu kulli muslimi kay tedd nga bépp ab jullit mu bokk na ca ña teewoon ca xare ba mooy ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàgg na koo bégal lu baax lu nekk di teraangay adduna ak àllaaxira yépp suñ boroom subhaanahu wa taala bégal na ko ca ci làmmiñu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te bokk na ci la ci gën a mooy bégal ko ci àjjana mooy fukki ñi yonante bi tànnoon lim neel na ñi ñëpp àjjana la ñuy jëm te boo fekk ñi ngi dund ndax am ëpp nañu fukk dañ ci lim fukk yooyu rek ndax da leen a limandoo ñoom teewul nag am na ñeneen ñu bari ñoo xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam joxañ na leen ne diw dana dem àjjana eh, ñoo xam ne booba ña ngay booba ña ngay ak ñoo xam ne sax booba faatu nanu mu ne Seydina Omar moom ku mënoon a wéyee ndigal la day mel ne li ñuy tudde ak mbaay faal day mel li ñuy tudde ak mbaay faal te mooy woye ndigal rek fexe ba lépp loo xam ne sa kilifa digal na la ko nga def ko ci anam ba gën a rafet nangu yor xol boo xam ne xol bu nangu la day mel ne moom noonu la meloon dafa ñëwoon rek nekk bàyyi faal bu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax rek mu ne bismillah du nangu kenn ñàkkee ko teggin eh, ba looloo tax mu ràññeeku bokk ca yéefar ya daa taroon lool ci jullit ñi waaye bi mu tuubee dugg ci islaam daa mujj tar lool ci ci yéefar yi mu ne Seydina Omar moomu bépp jullit mën na koo ndamoo maanaam teddangal bépp jullit la ngir li mu def ci lislaam daanaka bu lislaam yaatoo ba fu ne mu àgg fa rawatina ci suñu réewi Afrique yi daanaka ci moom la ko yàlla jaare ndax daa yàgg lool ci xilaafa gi wa fiihimu nekkoon na ca seen biir wala nga ne bokkoon na ca rek man ka nga xam ne nakaxa dencoon na bintay raisi sulaha ñaari doom yu jigéeni kilifa ak way baax ñëpp mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni muy ñaari leer xiina aflaha waxtu wa mu texee bi xatti kulli muslim ci rotal bépp bàkkaar ci sippi bépp bàkkaar sayiduna ta mooy sunu sang ba al mujammalu kadi ku ñu rafetal cib taar Usmaanu mooy Usmaan man ka nga xam ne xadd xotiloo rey nañ ko waxwa ta jamono jañ koy reyee moom isan boobee de yu rattilu ma ngay tartiil mi mi ngi jàng alxuraan jàng mu teey kitaaba muxsil aksami mi ngi jàng yu rattilu ma ngay jàng kitaaba muxsil aksami téereb yàlla mi aji <clears throat> joxe yoon wu jub yàlla mi aji tege ci yoon wu jub mune ne bokkoon na ci ñi ci xare ba mooy saxaaba bi nga xam ne mooy Seydina Ousmane ibnu Affan la tudd nee moom denc jot jotoon naa denc ñaari doomu jigéenu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam raisi sulaha bi nga xam ne mboolem way baax ñi mooy seen kilifa Seydina Ousmane mii dencoon na yaari doomam yu jigéen te mooy Ruqayyatu ak Ummu Kalthum dencondoowu leen nag yonante bi sallallahu alayhi wa dakoo da koo may Ruqayya mu denc ko gannaaw ba mu faatu eh, gannaaw ba mu mayaat ko ummu kalsum mu daal di faatu yonent bi sallallahu alayhi ne ko même bu ma amoon jeneen doom ju jigéen ju ma la may dama la koy mayaat mu mel ne mooy li olof yi di wax diw dafa ay gaaf kuñ ko ku ko defoon rek day fii ci suñu réew yi dañuy wax ne daa ay gaaf nang waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su ma amoon ñetteel it dinaa yëkkatiwaat may la waaye dama ko amut kon moom bokk na ci lañ koy tàggee mooy denc na ñaari doomu jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax ñu di koy ñu di ko wooyee zun nuuray ni boroom ñaari leer yi ndax doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay leer lañu moom mu denc ci ñaar loolu rek moom rek moo ko mas a am moom Seydina Ousmane mu ne moom nag dañ ko rey bi mu nekkee xalifa ay mbiri politique yu xewoon yoo xam ne ku ko doon nettali day gudd ba tax daal ñu ne dañ koo war a rey bañ koy rey nag dañ koo fekk mu woor yor kaamilu alxuraan di jàng suuratul baqara ba toll ci diggante fa sa yakfikahum allahu wa huwa samiul alim ñu daal di koy ray cor ko jaasi dereja tasaaroo loolu ba ñuy jàng ray ya jàngoon nañ ko euh, tabarkalla wa min xawaarixihi wa min xawaarixihi an min damihi jàngoon nañ ca ba leeral see ñuy leeral moom Seydina Ousmane mii nag moom bokkutoon nag ña ba dar moom bokkutoon ña teew ca xaswatu badrin waaye boo gisee sëriñ bi limaale ko fii dafa am lu tax mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne ñi ngi xaaree xaswatu badrin mu bëgg a dem moom Seydina Ousmane mi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ko yow toogal rek nga nekk ak sa soxna ndax Ruqayyatu mi ko yonent bi mayoon doomu yonent bi sallallahu bu jigéen boobu daa feebaroon feebar bu metti sax mu ne ko nag comme yow da nga sa soxna daa feebar da ngay toog rek yow loolu mooy sab xare loolu mooy sab xare toogal nga sàmm ko nekk fi wetam looloo tax moom fekkewul dara ca xeex ba waaye keroog ba yonent bi salla sallallahu alayhi wa sallam gañee yéefar yi rey ci ñoom juróom-ñaar fukk soixante-dix jàpp ci soixante-dix it jàpp leen keroog bi mu ñëwee bi ñuy séddale liñ jëloon ci liñ jëlee woon ci xare bi yonent bi sallallahu alayhi wa sedd dafa sédd Seydina Ousmane ñu ne ko lu tax mu ne Ousmane mii ab xolam teewoon na Badar bëggoon naa ñëw dafa am ngànt rek kon nag mal a'maalu binniyaati kon dama koy boole ci ñi teew moo tax mboolem lu ñu doon joxe rek jox nañ ko tey dañ koy considéré comme ku teew ba Badar moo tax sëñ bi limaale ko fii ni moom bu dee ca jëmmam moom fekki wutoon xare ba waaye yonent bi moo ko ca moo ko ci boole. wa fihim bokk na ca ñoom ña teewoon ca xare ba aljaalil wasan kay aje dàq xërëm wasan mooy firi xërëm. abul xuseyni baayub xuseyn wala xasan ak saydna xasan baabul ulumi kay buntu xam-xam wala xatan tadi ab goro ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam abu shiraafi kay baayub sërif yépp al anjumi ña ay biddiw sayduna ta mooy sang al mukarramu kadi ku ñu teral aliyuhu muy aliyum al muazzamu kadi ku ñu murdil ida kay aji alag noon ye al asamsamu kadi jàmbaar maayil aza kay aji dàq lor wala waje mi ak njàqare mu ne bokkoon na ci ka teewoon ci xare ba mooy saydina aliyun karamallahu wajhahu mi nga xam ne bokkoon na ci ñi xeex ba xërëm jóge fi jaalil wasan mooy baayu sëtu ñaari sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alxasan ak xuseynu eh, su ko defee ñu bari ci olof yi nag dañuy jàpp na ay seex lanu waaye duñu ay seex alxasan xam nañ ne moom ak alxuseynu bu baax sax Eh, moo ko moo ko mag duñu ay seex moo ko magee loo xam ne bariwut lool lool lool daanaka bi ñu bi seen seenu juddu soreewut waaye nag moo ko mag bu baax a baax eh, alxasan ak alxuseynu yonante bi sallallahu alayhi wa nee na leen woon bi ñuy dund yéenay sangi waxambaani waa àjjana waxambaane maanaam jeunesse su àjjana bi yéen yéenay nekk seen sang ëllëg yomal xeyaam ca àjjana Seydina Ali mii mooy seen waajur sayyidatuna fatimatu doomu yonent bi mooy seen mooy seen waajur wu jigéen siiw na mu ne sayyidna ali moomee moo nekkoon buntub xam-xam daa am xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne ana madinatul ilmi wa aliyu baabuha man day maay dëkkub xam-xam xam-xam xam-xam bu doon ab dëkk la man mii maay dëkk bi waaye sayyidna ali mii nag mooy maay mooy bunt bi nga xam ne ku bëgg dugg rek faawu ca moom ngay yaare daa bëri woon xam-xam ba jéggi dayoo mu ne kon gorob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo doon denc sayyidatuna Fatima waaye nee na mboolem kuy kuy sërif rek mooy sa baay moom sayyidina Ali mii ndax euh, moom ak sayyidatuna Fatimatu njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ci dund ay sëtam ñi dundaat ginnaaw bi ñëpp ñoom ñii ñooy seeni i ñooy seen i wajur koo dégg ñu ne sërif la rek euh, day bàyyi koo ci sayyidina Ali mii ndax day jóge ci alxasan ak xuseenu ak ak seen doom sërif yi nag yaatu nañ lool sëriñ Touba mi sërif la boo jàngee Irwa un Nadim leeral na ko sërif la ci wàllu ndayam ak baayam yëpp boo leen toppee dañuy dellu ci Sayyidun Sayyiduna Xasan mais mu njëkk a wax ne Abul Xasani wala euh, Abul Xuseyni wala Xasan Sayyiduna Xasan moom yi sërif yooyu nga xam ne dañoo tedd ba mel ni ay biddiw te nee na mooy Sayyiduna Ali mi nga xam ne ku yàlla euh, teral la al mukarram danañ di di wax ne bu ñu waxee aw turam ne la wajhahu mu yàlla na yàlla dollee teddal xar kanamam ñu ne lu tax ñu koy ñaanal loolu te moom doog lañ koy ñaanal ci saxaaba yi ñu ne dafa mësta jaamu xërëm kanamam googu daa mësta sujjóotal xërëm moo tax ñu de ko ñaanal am ñu ne moom daa mësta gis awray jaam daa mësta gis awray boppam waxuma ak awray keneen maanaam dafa fegu ba nga xam ne du xool mukk awray boppam waxuma nag awray keneen wallahu alam yàlla xam luñ ci luñ jublu ci loolu mu nekkoon ko yàlla màggal mu nekkoon ko xam ne ku nooni ragaloon la ndax man a xeex ak njàmbaar mel ne fu sëriñ bi tudd di ko tagg rek faaw dana indi njàmbaaram googe eh, ba ko sëriñ bi tagg arraye la mu waxoon mooy lahu sajaatu wala irfaanu ma sharafin bam eh, banam jeexee fu mu tudd ñëw rek njàmbaar gi moom faaw mu ñëw moo tax mu ne murdil ida daa doon alak noon yi nee ñëw ba masaan di xeex côté bi mu nekk da koy xam day day mel ne eh, maanaam banti gattax yu ñuy dagg ñuy daanoo wala xobi garab yu ñuy dagg ni ñuy daanoo noonu la yéefari daanoo ñëpp dañ ko daa wattandiko mu nekk jàmbaar joo xam ne gaynde la waaye mu nekk koo xam ne day daq lor di daq njaqare saa yoo ko jullit ñi yëkkati maanaam yittewoo léegi nag ab yéefari ñëw defi leen ñëw bëgg lor yonante bi wala yu mel noonu bañ am ca njàqare waaye bu ñëwee rek lépp delluwaat euh, fam war a fam war a dellu yàlla yàlla defal dégg ak bi daalika lana amaanun min wajal wa min anaa'in wa xajal wa min jawan wa nadami sëriñ bi bim nettalee xasotu badrin ba mu jeex mu ne bi daalikal yawmi ci boobe bis xasala am na lanaa ñeel nu amaanun sécurité muy kóolute min wajal ci njàq rek metit wa min ana in ak ci coona wa xajal ak gàcca wa min jawan ak ci naqara tiis wa nademi ak réccu mu ne saxaaba yi ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xare boobee ñu xees ci xaso xare boobee badrin nee na yàlla defal nañ ci bénéfice ba ñuy kenn ëppalewuñu ci man ak ñi ma àndal yàlla defal nañu sutura bénéfice ba xéewal ya ca nekk kenn ëppale ca am nañ ci sécurité boo xam ne dara mënu mënuñoo fàbbi bi dara lu dara lu nu mën a yàqal wala lu nuy tiital du njàqare du coona du gàcca du naqar ak tiis du ak rëccu ñun daal suñu borom aar nañu ci sàmm ci te loolu lépp ñu ngi ko amee ci barkeb xare boobee ñu xare woon bihi nekk na ca xare boobi xanii naa sunug màng sunug doylu lil jinaan ba keroog ñu dugg àjjana maa ngi ñi ma àndal an xaswatin walis ñuy xarewaat wa wa an hawaan ak walis ak doyadi taaba teey na lanaa ñeel ñu bihi ca bis boobee azamaan jamono maa qabulil xidame ànd ak nangub liggéey ya nee na maa ñi ma àndal suñ boroom defal nanu ne xare boobee saxaaba xare woon doyloo nan ko wala suñu naan dañuy xarewaate ki ngàndaay maanaam daal di woote fitna yor ay ngàndaay dem di song nit ñi ak yu mel noonu ba saxaaba ya xaree rek lañuy ñuy yóbbaaleel ñun sunub xare kon noonu xare yi ñu fi desewaat mooy xanaa xare ak bakkan waaye daal xare di yee fitna moom maa ngi ñi ma àndal moom duñ ko defati mukk ndax saxaaba yi lu matoon a def ca loola def nañ ko li fi teg nag mooy jàngal nit ñi yee leen ak yóbbu leen ca yàlla loolu rek moo fi des kenn duñu doyee dalati waaye jamono day teey maanaam fitna du dalati mukk sunu kaw jamono day teey day teey ba noppi nag suñu borom di ñu nangal suñu liggéey bi ñuy liggéeyal moom suñu borom subhaanahu wa taala bi ñu koy liggéeyal ak bi ñu liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag bu fekkee ne li matoon a def coono yi lépp saxaaba yi def nan ko war nañ leen a sant war nañoo sant saxaaba yi waaye war nañoo sant yàlla ndax kat joxe sa bakkan lu méttee métti la mën naa am bu yàlla farataaloon xeex ci nun wala ñu fekkee woon ko mën naa am day ñu tàyyal ca xeex ba wala mën naa am sunu bakkan not ñu ba tax ñu ragal dee ba tax duñ nangoo dem te su boobaa tuskara lay doon sun kaw kon yàlla musal nañu ci loolu ba noppi bénéfice ba ca saxaaba ya am nuyit nu am ko ci ci ak mbaaxam moom yàlla suñ borom subhanahu wa taala innahu waliyu dalik wal qadiru alayhim mën na ko yàlla ko defal comme loolu lépp am na nag coono yi jeex na lu fi des mu ne kon léegi màggal rek moo fi des kon fal nahmadillaha nanu sant yàlla ala najaatina ci sunu mucc mi man ci ka xam ne xalaa bañ na wala ci ña nga xam ne dañ bañ wa kulli charrin ak wépp ay mus jala wu mu mën a doon bil Mustafa ci barkeb yonant bi almuxaddami kadi ñu jiital fa sunu borom mu ne koo xam ne lammatoo na def lépp da ñëw fekk say say baay ak say maam ak say kilifa defal la ko yow daal bi nga ñëwee daanaka noofalaay rek nga fekk boo ñëwee boo bëggee julli dangay taxaw rek fu la neex julli bu la neexee jëm ci réewi tubaab bi sax ña gën a bañ jullit ñi nga taxaw ci mbedd yi julli kenn du la wax dara fu la neex naafila heure bu la neexee woor fu la neex jàng alxuraan amoo benn coona moo ne ña ko may de ñoom mënuñu woon loolu ñoom dëkk bañ nekkoon muy màkkatal karama juddoo fa màggee fa bu masaan bëgg a julli dañuy dugg ci néeg tëju làqatu ba noppi duñ nangoo wax ca kaw dañuy wax ndànk di ko ñurumtu ngir bu ñu leen yëgee fekk leen fa ray leen moo ne ñooñee day dañ leen a tere woon jàng alxuraan ba ci kaaba gi sax kenn ñi mu fee taxaw di jàng alxuraan keroog ba fa Abdullahi ibnu Mas'ud ne man daal dinaa ko def ñu ne ko ah moytul da ngay da da ngay xaru mu ne ba ca kaaba ga jàng fa alxuraan defe naa lañ ko fa def ci ay dóor yu metti këdd ko wéqu ko lu ne ba dañoo mujj ñëw xettali ko buñ ko defu doon dañ koy rey waaye de mu ne man alhamdulilah sant naa yàlla ndax liñ gënoon bañ mooy jàng alxuraan ci kaaba gi daal man def naa ko lu ma ci mën a jëlee ci daan amul solo kon ñoom noonu la meloon kon nag ñoom seen xeex boobi ñoo nooyal suuf si ba fépp nooy ba nga xam ne léegi lu la neex def kon day sant yàlla rek moon war bi yàlla dogalee suñuy noonu ñëpp yëpp ñu mucc ci waaye mucc ci lépp lu bon te lépp ñu ngi ko amee ci daraja yi koo kay yàlla jiital fépp mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama inni naka man sëriñ Tuuba u xaatibu maa ngi nii di waqanteek mooy wax di wax ak aljamil yàlla mi aja rafet ja maa ngi wax moom fi ci ca bi wa fil aali ak ci ñoñ yonant bi al udul ña di way maandu sox bi ak sahabaame bila xumul ci ludul ak làqatu bi yen ci ñaan dolli xéewal wa sallimi ak ñaan dolli musal ci yonant bi sallallahu alayhi wa ak i sahabaam nee na comme nettali naa xare badar ba mu jeex bénéfice ca am yàlla fàttewuñu maag ñi ma àndal defal nañ ci ay xéewal yoo xam ne du jeexati mukk ba keroog ñu dugg àjjana te du ñu gis dara lu ñu metti nee na kon nag maa ngi waaj a jaajoo ci nag maa ngi waaj a jaajooti di jum dem ci julli ak sëlma ci yonante bi sallallahu alayhi ndax lii lii lépp yàlla bu ñu ko defalee ci dara jaam lañu ko mayee bil mustafal muxaddami kon nag maa ngi nii di wax ak yàlla te li ma koy wax kat du sama intérêt bopp du sama njaboot wala nangam déedéet damay jóg di wax ak moom di ñaan salaatu salaam nekk ci yonant bi nekk ci ay saxaabaam waaye nekk ci waa këram loolu rek laay wax ak moom yaa rabbana tàmbali na ee yow saa boroom yaa rabbana ee yow saa boroom yaa yow sama xarit bi yaa xibbanaa yow yow sunu soppe yaa xillanaa yow sunu xarit yaa xibbanaa yow sunu soppe bi salli yàlla nga dolli jàmba xéewal ala sayidna ci sunu sang muhammadin muhammad wa sallim ta nga dolli koo musal wa alihi ak ay ñoñam wa sahbihi ak ay sahabaam wa di taalluqin bi ak képp koy boroom aju fa moom képp ko aju ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nangoo nekk ab surgaam waaye nangoo nekk ab dongaam te mooy jullit ñëpp rek min awliyaai xisbihi ci wàllu yi nga xam ne ñooy kurélam ba wal tataqabal te yàlla na nga nangu xalami sama xalima mooy samay taalif rek kon noonu ma ko waxee ne maa ngi wax ak yàlla te li may wax ak moom mooy mu def teraanga ak ci yonante bi ak ay saxaabaam loolu la tàmbali mu woo boromam subhaanahu wa taala ci nim ko baaxoo woo mu yaa rabbanaa yooyu ne ko suñu borom day yow mi nga xam ne yaay sama soppe yaay sama xarit maa ngi lay ñaan nga def teraanga ak defal ko yonante bi sallallahu alayhi wa waaye defal ko ay saxaabaam defal ko wàllu yi nga xam ne dañoo aju ci moom ak képp kuy nit ku baax te it yàlla na ma yàlla na nga ma nangul yàlla na nangul sama liggéey moo tax bind yee di waaj ñëw da ngeen gis lu mat fukki bayit ak ñaar yoo xam ne yaa rabbana salli ala lay tàmbalee yëpp yaa rabbana salli ala rek lay tàmbalee jeexe wa salli sallimi wa sallimi te loolu lépp ay salaatu salaamu lay joon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu wa rahmatullah yàlla na yàlla defal dégg ak topp